Mouhamed ci jërë ngeen jëf atmosphère toxique mooy li journal bés bi le jour gis ne moo am ci réew mi guddi yu ñu toll ginnaaw fitna xët-xët gi fi amoon keroog alxemes waa kër Ousmane Sonko yi di waa parti Pastef yéenekaay bi nee nañu li ñu bëgg moo di passeport Ousmane Sonko bi yoon tëye ñu delloo ko ko mu mën a dem bitim réew faju ji ndax aw yaramam loolee la jamono ji Sud Quotidien ñu ci xëta mu njëkk Alioune Tine jiital Afrikajom Center moom it loolee la gis nee na mooy li xel nangu te état bu Sénégal la ci interpellé ndax Ousmane Sonko dana mën a génn réew mi bu dee amit ci yan condition lay amee weneen yoon mu war a jaar ci wàllu yoon ngir leeral yooyu yëpp l'observateur xëy na di ci waxtaan ak i juriste ñeenti téeméeri doomu aadama journal La Tribune nee nañu ñoom la ñu teg loxo ci réew mi ginnaaw manifestation yi fi amoon keroog alxamis am ci ñoom ay sàcc ak i agresseur yoo xam ne caméra surveillance yi ñoo leen feeñal am na it ay responsable ak i gros bras yu bokk ci parti Pastef yu ñu teg ay gët libération nañu ñuy jàpp ci réew mi ginnaaw manifestation yi fi amoon keroog alxamis seenub lim jéggi na ñeenti téeméer ñoo nga ñu tëye ca police centrale bu Dakar ba war leen a ci ñoom Waly ñoom agent di à vue Abdou Karim Gueye di Karim Xurum Xaq yéenekaay bi nee nañu moom it ma nga ci loxoy alkaati yi division investigation criminelle yi li taxoon ñu woolu ko ba ko doon laaj ba mu yeggee nanguta tontu policier yi parti bi la leen may ki ñu doon tuumaal ne moo posone Ousmane Sonko am lu mu ko sotti keroog bu ñu ko yóbbu tribunal libération nee nañu waaji ji yarga si la tudd ci parti Pastef ci la bokk alkaati yi teg nañu ko loxo lise ko nañu moom waa ji di yarga si ab agent la buy liggéey ci aéroport international Blaise Diagne bu Diass waa sûreté urbaine ñoo ko jàpp nee na leen li mu sotti Ousmane Sonko bineegar la bineegar la ko sotti ndax daa gis bi grenade lacrymogène yi tàkkee Ousmane Sonko ba di doon jooy ci la ko sottee bineegar bi ngir bëggoon koo xettali l'observateur nañu waa ji def loolee di yarga si fukki fan ak juróom-ñaar ci yoru août 1987 ci la judd ma nga juddoo ca sàkkal ga ca ji superviseur en sécurité la te aéroport Blaise Diagne réew mi ak tekk gi fi am fan yi Vox Populi tekki na si a la ci gis di ñu xamal ne ba mbiri xewe ak léegi kenn déggul Ousmane Sonko mu wax ci ca jamono jooje Vox nee nañu ci la gis président Macky mu ànd ak première dame di doxantu di balaat ci mbeddi Ndakaaru yi ab ministre moom Macky di Amadou Ba Le Quotidien nañu mi ngi koy teg pression ngir mu samp am dëndëm décidé rapidement ci élection présidentielle yu 2024 yi L'Observateur nañu ca tàggat bëgg bëre bañ bëre mu neex ko dafay sóobu ci géew bi mu naqari ko dafay sóobu ci géew bi ndax askanu Sénégal ñoo bëgg loolu ministre Mouhamed Ndiaye Rahma bokk ci ñuy woteen mobilisation bu mag boobee ca Kaolack l'observateur ne nañu li mu yóbbante premier ministre Amadou Ba ci président Macky moo di nekkoon ne waa Kaolack pare nañu askanu Kaolack pare nañu ngir falaat ko Kaolack benn choix la am benn plan la am ci élection présidentielle 2024 fa la woote woon ab meeting bu mag a mag askan yu jóge woon fu nekk ñëwoon wuy si ko mu leeral fa ne bu ñu yeggee 2024 opposition bi ci lay xamee ne fii ci njaareem amuñu fi dara daam jóob ne ñun ak Macky Sall waxuma la waaye ñun ak moom ba 2035 Omar Bon Khattab si la ma jiite woon Dakar dem dikk waa Grand Place ñoo ngi ñuy xibaar ne moom it ma nga doon wane boppam ci week-end bi àndoon ak mouvement bii di mouvement valeur dooleen Macky Sall ci di seet nu ñu na ay Petrosen Holding di bi ñu dem ci liste électorale yi ngir waajal 2024 nee na it askanu Gossas wi def nañu seen tànneef ba noppi président Macky Sall la ñu tànn te dina leer ngoonuk 2024 gëm sa bopp di Bougane Gueye Dany ci xët mu njëkk journal L'Info ndaje mi jigéen ñi ñu bëggoon a def ngir investir ko def ko candidat ci présidentielle 2024 yi te ndaje mu mujjuta am ki ñu ko jiñ yéene bi nee nañu moo di président Macky ndax nee nañu ba événement bi desee une heure ci lañ leen soog a jox autorisation bi te dañ leen ko WhatsApp Nafissatou Diallo porte-parole parti démocratique Sénégal moo xëy amee xët mu njëkk source wa waxtaan wu yaatu la fa def ak gaañ ma nga fay dëggal ne xel xalaatu ñuy ànd ak Aminata Touré mi nga xam ne fukki ati yàlla moo ne woon numéro 2 bu régime bu Macky Sall xanaa loolee muy dëmmuray la jaale la yéenekaay yu bari ñu xëy ndul xëy nañu di ñu tàggee Pala Samb bokk ci ñoom journal Bës Bi Le Jour mi bind ne maire bu Point E di Pala Samb génn na àdduna démb su nekk ay xibaar yu